sañ saña nag yooyu nguuree dama sàkk fii xaas ku ci ngoo génn fii xaas ku ci ngoo waay yi maa ngi baalu ak ñëpp tey bal ñëpp ak di ñaan yàlla doole ñu suturo fii duniya wal di ñaan julli ren gi yàlla ñu ko fekk ati ati at ci barke alquran ñi nga xam ni jiitu nañ fekk wuñ ko yàlla oyofal suuf seen kaw ci barke yonent beeg weer bu màgg bi ñu génn di nuyu mboolem réew di nuyu di mastaw li xew Palestine di leen wax metti na euh, képp kuy jullit metti na ko waaye nag yàlla bëri na sutura yàlla leen yàlla jàmmal teg leen loxo leen yàlla jàmmal loxo moom ci barke alquran di nuyu waaka Amérique maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di kontaan macha allah gis nañu grand boubou bi Euh, macha allah rafet na yéene ji lépp yàlla nu ko yàlla fay ci barke alxuraan di nuyu mari ba président tournée Serigne Abdoulaye Diop Khass bu Suisse Mari maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Nestor bu Paris di nuyu Sali Allemagne di nuyu Abdou Thiam Italie di nuyu Rama Thiam soxna Rama Thiam soxna Rama Maroc di nuyu groupe Mauritanie di nuyu mboolem koo xam ne rek soppe sëriñ Abdoulaye Diop Khass nga te nekk ci réew maag ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu sama liggéeykat yëpp maa ngi leen di nuyu di leen mastaw di wax ni gis nañ coono bi ak euh, macha allah ndax liggéeyal mbooloo metti yàlla na yàlla teg loxo ci barke yonent bi di leen wax rek maa ngi leen di baalu ak ñëpp ñëpp ñëpp ci barke alquran marit maa ngi baalu ak ñëpp ñiy jënd crédit di woote ba sonn duñ mën a jot xaar lii di woote ba sonn duñ mën a jot xaas ñi ñi envoyé seen i audio xaas du ko dégloogul lépp rek ñu comprendre te xam ni xat-xat bi la waaye wallahi maa ngi leen ñu ñoom ñëpp di leen ñaanal jàmm su ma sañoon kenn du feebar bay woo sëriñ su ma sañoon kenn du am soxla bay woo sëriñ kon nag yàlla mi nga xam ne mooy tegee feebar te mooy teggi soxla yàlla teggi ñëpp seeni soxla ci barke yonent bi yàlla kenn feebarite ci barke yonent bi yàlla defal ñëpp jàmm ci barke alquranul karim yàlla doolu leen sutura wax dëgg yàlla kontaan naa ci yéen biir ngone macha allah ñëw bi rafet na trop trop trop trop ñu ngi ñaan yàlla barkeel loxo bi ñaan suñu borom yokk la atelier yi yaatu yaatu yaatu ba macha allah vraiment kontaan nañ ci ñëw bi rafet na lool lool lool lool di ñaan yàlla na atelier bi yaatu Khass Couture daal yàlla na ko yàlla teg loxo yàlla na ko ci yàlla jàppale yàlla suturaale ci ngoone Diop jërëjëf macha allah. bu baax a baax a baax di la wax rek macha allah ci yére bi. kontaan nañ ci trop trop trop rafet na ñu ngi lay ñaanal suñu borom yokk la yàlla defal la sutura ak xéwal lépp loo bëgg ci àdduna yàlla defal la ko di nuyu mbokk Amérique googu ak ñi nga nekkal ñëpp gis nañ yëg-yëg gi gis nañ cofeel gis nañ lépp vraiment waa ka ñu lay ñaanal gudd ñu waa kontaan naa ci lool jërëjëf. am sa géwél na nga jël bàyyi maag sama géwél gi. am sa géwél <laughs> am sa géwél na nga jël bàyyi maag sama géwél gi. ku am <laughs>